السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بطاه هو يا رساق يا ميكي بتوهبي وسكن أنا تقي أسير عاجلا بشي محمد حرق بالرمين يا كنا بشي بهم دعاء وحنا يمكن أن الله وتجيب اسم مسكرة لك الصلاة وأدي وجا شاكين يا مش أنا أجيب بس أجيب سيدنا حسن أجيب محمد وده البطاء الله سبحان كلام سبحان سبحان محمد زينا وحمد نيجي شعري نب بشعري di ñëpp di di siyaare soofiyanke yi ñëpp di leen ci tëggal ñoom nga xam ne soofiyanke yi ñooy almuridun waaw xay su kaanu xay su ujidu nga di siyaare sunu sang bu tedd ba si Sëriñ Muxtaar def sang boo xam ne la ko seen si si yëpp al ibnu waxoon radiyallaahu anhu radiyallaahu anhumaa boobu ñëwee di ko siyaare ji ne ko ab suuf yu nga may leen suñu basis moom de baat ba xam ne xam ne la muy firi baat ba waaw baat ba xam ne ko ko am mutasawwif nga mutasawwif mooy ko xam ne ne moom daa bëgg neex ko mu ñëw doon seenu taalibe rek topp leen bon loolu lu am jox leen di di déglu seen i digal topp ci waaye nag si suuf yi nag mooy mooy koo xam ne moom dafa sóobu moom soobu dox ba ba ba dugg ca biir kuréel ba kookoy suuf yu nga xamante ne suuf yu kàngam dëgg moo koy doon koo xamante ne daa boole mooy liimaan gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg jox àq yi nga ngëm nga lislaam topp su na si yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dëgg jox àq eh, topp ga ihsaan mu jox rek ci tànkam dox ca jëm kaw loola loolu ku def loola ku def loola suuf nga dëgg kooku nag si si dul muxtaar loolee sa sëñ bay jaxate waxoon naan mbërum saahir ak mbërum tasuuf niro bu ñu lal bu ñu songoo mbërum saahir ma mooy daanu ñaari suufu yu bu ñu songoo ko ëpp ngërëm mooy ñot ci mam ba bas ko muy jëm suuf ba kay daanu suuf suuf yoo ko koy suuf yi daana keer bu mu toogee wax naa ci ak xam buy dii mooy buy dii mu suñ suñ bu jaxatee dal leen dal leen di wax ne kër kamil la mais dal na ku mat te moy ci ba lah. ndax ko moom day lañ xam ci ci moom gaa yi ci li ko ca garawam lépp dund dund tasaw dëgg di ci kar di wit ci àll bi ngaan nag bu ngee nekkoon na fa nekk fa jamono naqari lool ba ba ba bari daw bàyyi ku ku ci dëkk ba mu ne fa rek ne rek nekk ci ci kurus gi di si kar di si kar am na na na ne am na naat moo xam ne ci ngan na dafa naq rey lool na nawet ba mu xëy daal di di woote na ne na dem ci pinc ma dajeeg moom. nee na nee na kooku nee na ma si jiitu mu taabal boo boole ma génne fekk ko mu mu jiitu turist ba daal di leen ne am na dafa am ci ci ci wàllu ñoo xam ne seen mbir suñu boppam da koo def ci seen yëbët kon na ma ñëpp xool daal di toog kooku nee na at moom moo gën a neex ab ab lool li seen lool li boobu booba moo gën a neex nee na loolu yëpp da nee nee dëkk ba ñëpp ñii ñii sange nañ seen i kër booba ñii ku ne yenn ya tukki nañ at ma neex lool lool lool lool lool lool man mii gëm goo xamante ne gëm naa ko mag ña gëm doxin ya moom sama ñëw fi fa moom fii ci ci kuy mbind caale ko mooy o liggéey institut cheikh cioro moomu ne fa itam ma ko ma ne ko waxal ma sëñ bi ne ko dama bëgg ma dimbale daal koy wax ki nga mooy sëñ diw sëñ diw waxa wax ba kii wax liggéey ñu faroo ci toolu sëñ si bamba bi noppi sëñ bi daal di sumi weer ya daal di sëgg na ma jàkk nga xool ko mu xool mu saa tuuti yaram daal di siggi waaw loola it fekk naa ko it ngan na mu wax ko ne ko man kat man kat sëñ mën naa jub laa sëñ Ahmadu Nuur Jóob kër mu di jël ak pot pot boo xam ne bu potu pot cuuraayu jidda la ñoo xam cuuraayu jidda pot yu mel ne nikkal yooyu yu ndaw yi defuma ci ndox defuma ci dara jox suuf soo xam ne xanaa quatre-vingts lay doon wala wala mu jiitu ko wax waxan ma ci ay yëf ma denc ko ba tey jii ma gis ne kat maanaa maanaa loola bañ mu jeex ja aajana yiti lool ndax quatre-vingt ba léegi si suuf soo denc ba ñu jeex ay yéen na yitte ma gis ne kon kon li gën a noppali ci bii mën naa am ci xelum nit mooy jël pot bu deful dara deful ndox jox ko bu xam jox ko ko ko ne ko ma jox ko ko pot ba ne damaa bëgg nga defal ma ci eh, pot bii loo xam ne su ma la woowee nga wuyu ma nga mu daal di jël loxo bi ci pot ba ñaan ñaan tifli mm, keroog si si si si sax ci keroog keroog ca ndox naan gaa yi ñoom it mbooloo mbooloo moom ma keroog doo dem si suñ bëgg bëgg naan ci ma xam ma xam ma loola ndax ndax ndax xam gu ma xam yitteem booba. yite yite ya kawega musna musnama am so bin bi metti daniel ma ma dal di koy ma dal di koy mocce innam na na abdullah khadir sin am gogo bon ko mocce mo mel ne dafa dem ci nobba mo mocce ko innam innam na bay bom dal waaye yëg naa ni ne loola la ca doon yëngu duñu di jugut buñ demee ci suñu si suñ si waxtaan ànd si mu taxaw ñii fi toog tey taw feex nga fekk ci wetu Tuubaa ñu ñu dem fa moom bu ñu waxee ba ba noppi kenn ku nekk ci borom xam-xam yi ñu ñaar lay présenté ne kër kii mooy diw kii mooy diw mu ne ko ma ne suñ sama nopp bii dafa am lu ci nekk ma bëgg diñ ma ko suñu mataak inkar ci leen ne ah loolu xanaa kon moo gën a noppale suñ suñu mataak daal di sëgg ca woyof ka ak gitte ja ak magi ga daal di mun mu ne ay baat ëf ci nopp bi ëf moom boobu ëf yi la ca nekkoon dama dama yëg ne moo ngelaw la ànd di dikku di wuy loola loola loola loola loola keroog sax suñu mataak jox jox na ko ak kuus kuréel kuréel su su boppam loolu wax bëgg ni ko ne ko demoon kene bu andi ma sama kurs ga da da mo la la kero sing ndax ji ji tale momu inspecteur ndax ba gaay bu ngénné ñu ba nopi la la do ci ko man dugg ci señ bu wax ak mom do sing ji dara mo dal def xana fekk fekk xana xana top mo def dal ñu andi suuf ne da mbokk mu bëgg mu ñaar ko loolu loolu mu muy muy doxee nu mag ña muy ko ku am solo ku daa ku daa ku daa liggéey tur yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg nangu caa sonn lool am na am na am na bëkk néegam bu ko jege ne bu ci mujj waaw ba ma koy wax léegi ñaari na ma suñu yër muxtaar ba tey ma sax mu mu yeexa ubbi yor-yor yooyu ubbi ndax day fanaan ne nafila kamil bi loola suñ sa yu rek ci ci ci mujj rek suñ ñëw tar dafa daay jébbal ay kamil mu mbindum loxoom xam ne loolu ma ma gi lépp teewul mu am yitte yooya boo xoolee ab jitaayam lu mu yàgg yàgg day toog day day ne ne ko ci rek ni mag ña dama ko seetloo day nuyu sama maam yi suñu Ahmadu Nooru dugg na ci noonu bu yàgg bu yàgg du wéeru loolu kon doxee doxee mu ñaar xam naa xam naa yàgg jotaayu kurus yaa tax mu man loola si si waxtaan daal daal ngoog ko ko ko ma teewoon jotaay bu la kenn tolluwaay kattanam nag ndax kenn kenn du kenn doom si suñu boobu ci kenn koo ko tam soo soo ko xees mu gis ko noonu am na ko suñu musaa ko waxoon ci seen sag bu tëdd ba soo xadim wala ci waaye day moom day jàmbaar la jàmbaar la yàlla ko suñu boobu yéega ci ca maqaama gaa yu baax ya sarax ñu ne nag ñun da bokk tànkam ba sekkeram bu yàlla yàlla ñu ko suñu boobu sarax man de maa ngi koy saraxu yàlla bu wér ci barkeem bi jeexi si xadim cobi barakati sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu taala alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallam